te nekk ci biir Sénégal fu ñu fas yéenewul teg suñu tànk diggante bis ki ëllëg ba mois de juillet deux mille vingt-trois allah.